di développement communautaire bi nga xam ne ginnaaw suñu borom président Macky Sall moo ñu ko dénk ba mu siflee loolu ci la ñuy tàmbali maanaam lépp loo xam ni moo lal ci doxalinu euh, nu ñu mënee fexe ba doxal maanaam appui alimentaire boobu mooy dund boobu nga xam ni dañ ko war a jënd jonnee ko fexe ba mu yegg ci askan bi ci loolu nag dañu waroon def loo xam dañuy bokk liggéey bi te pour ñu bokk bi il faut que képp koo xam ne mën nga ñëw indil dara ñu boole la ci armée mi ngoon ci biir gendarmerie nekk ci biir le programme alimentaire mondial nekk ci biir mais aussi ak l'ensemble de mes collaborateurs nous nga xam ñoo bokk liggéey bi au niveau du ministère développement communautaire te aussi vraiment le commissariat à la sécurité alimentaire joué ci rôle boo xam rôle bu am solo la en tout cas tey jii nga xam ni pare nañu liggéey bi parce que ñu ngi tàmbali opération bi depuis le 11 avril mooy camion yi jëkku jógee dem au niveau des régions tey jii bu cinq cent cinquante 552 mooy les juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar yu commune yu Sénégal am commune yëpp pare nañ seen liggéey amul ku parewul ñëpp pare nañu. lu que ni quelques bénéficiaires yo xamni gisaguñ wala quelques bénéficiaires mais amul commune bo xamni et en trois mois il y a opération opération c'est la première fois dans en Afrique opération bu melni am ñu def ko ci anam yi def ko ci temps bu